ak a ñaawlu benn série théâtre boo xam ne day daw feneen fu dawoon bon na métti woon na waaye nag bu dawee ci RTS ci lay gën a ci lay gën a métti walaay ñu ngi koy ñaawlu dune dañuy ñaawlu tey suba ñëw duñu ñaawlu wala dañoo ñaawlu woon démb tey ñëw déedéet lu bon lu bon la ak ku ko mën a def lu baax lu baax la ak ku ko mën a def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen def seen boppi silmaxa ñu ngi ànd ak diw su ne weex na ñu ne tàll su ne ñuul na ñu ne kukku déedéet ab jullit day am principe dëgg-dëgg loolu di fa daw ñuy ñaawal ñi gën ci xeet wi muy xiyaaru xiyaaru naas xaasatul xalqi xawaasu naas di ahlul quran ñiy jàng alquran te di ko jàngale yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ñoo gën ci xee bi kon ñooñ bu ñu leen di mokke di leen di ñaawal rawatina ak sëñ daara ya ci ay théâtre dañ naan loola dey ñaaw la te ñu ngi ñaan di sàkku mu dëñ ci nëm gën a gaawee mbokki jullit yi tooñ baaxul baaxul ci benn côté waaye nag tooñ ñi gën a baax moo gën a bon loolu moo tax taxawaay bi nga xam ne mbootaay gi ñuy tuddee modaab modaab mooy mboodaayu mbootaayu doomu daara yi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi nga xam ne tey ñoo nekk ci réew mi bi loolu amee rek lañ def déclaration boo ama am solo boo xam ne jullit ñi war nañ koo bàyyi xel su doon ñeneen dañ naan ñii comme ñoom lañu àndal kenn ci ñoom jiite RTS lii di fa am dañuy sëgg mu jàll waaye dañ ne déedéet ak luñ ci ànd ànd lii moom lu ñaaw la dañ koy ñaawlu te buñ sañoon mu daal di dëñ ca taxawaay yàlla na ko fi yàlla jeexal waay ba su ñuy ñaawalati ñuy ñaawal saay saay si ak kàccoor yi nit ñi man leen a moytu waaye bu ñu leen di xëcc di leen bëgguloo di leen fonkaloo ñu leen di fonkaloo jaami yàlla yu baax yàlla ñu yàlla defal loolu suñ mbokk yi li ñu jiitaloon mooy waa Bakel yi ak maatam ñu ngi leen di masawaat ña faatu yëpp yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen nangu leen seen shahada ndax ab jullit moom bu faatu ci dafa am shahada fi sabilillah suñu mbokk yi la ca Palestine ca Liban ay jullit Syrie ña fa nekk di jullit ñëpp jàkkaarlook noonu yàlla yi yàlla na yàlla may leen ndam waay te wallaahi yéen a ngi dégg Erdogan barki démb mu ngi def déclaration di wane ne Israël pare na pour jàmmarloog ñun te ku nekk xam ne ne golf bi yëpp la ko fa tere woon na dem daanaka mooy mooy Turquie yàlla bu Israël ndam mukk ci léebu jullit ñi yal na ko yàlla mabbal yal na yàlla naxasaal naxasaayal leen wa ma zalika ala allahi bi aziz allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ali saaru système law daal boo xam ne be ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun moom ñu am talent la ñu ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombee mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme keneen na ko société mbay indilee bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bi man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkk danga nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn julit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeep bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen i mën a bokkal ci lii kon gaawal boo boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko ci boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la